business yi ndaw yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci yarum ganaar ferñeent yi nga xam ne baax na pour gu yaram ci fànn wi nag dinañ xool lanay njëriñ li nga xam ne moo di ferñeent yi pour wérgu yaram xool tamit wala waxtaanee li nga xam ne moo di njëriñi lekk li nga xam ne moo di ndawali ganaar ak ay nenam ba tey tamit dinañ leen yaatalal ñu daal di xool li nga xam ne moo di business yarum ganaar njëriñ bi nga xam ne am na ko ci wàllu li nga xam ne moo di wér-gu-yaram wala ci li ngay lekk ba pare tamit xelal leen ba pare tamit xelal leen naka ngeen di def pour fexe ngeen lekk lu uur ak lu sell lana tax lekk lekk yoo xam ne dañoo uute pour am ferñeent am solo lool lekk-lekk yoo xam ne yu utee lañ te am farñeent yu baax loo xam ne lu am njëriñ la pour sa wér-gu-yarami njaboot sa yaram bi dinay faral di jëfandikoo loolu nga xam ne moo di farñeent yooyu nga xam ne dinay jógee ci ñam yi nga xam ne moom la ñuy dundee pour nag gën laa dëgërloo tamit yokk li nga xam ne moo di màgg nit ki bu fekkee ne ñam yi ngay lekk amut ferñeent yoo xam ne yu baax lañ di dina tax nag nga ñàkk yaram wala boog daal di jeex wala tamit ñàkk dëgër ak indi la ay feebar lan mooy njëriñi lekk ganaar ak ay nenam yar lii nga xam ne moo di ganaar yi nga xam ne moo di duwal purpose poultry dina la dimbale yow ak sa waa kër ndax ngeen gën a am wér-gu-yaram lii nag lu koy waral moo di ne ganaar yooyu ndawal la ak li nga xam ne moo di nen yi am na ay ferñeent yu bari yoo xam ne moom la àndal lii moo tax boo ko lekkee dina la dimbale pour si sa màgg ak itamit ca dëgër lii nga xam ne moo di ndawali ganaar ak itamit ay nenam dafa am ferñeent bu ñuy faral di ooyee ci english protéine loolu nag nekk loo xam ne lu ñu soxla lool la pour dëgëral suñu doole suñuy yax ak itamit suñuy boñ dina dimbale yaram bi pour mu xeex yu bari yoo xam ne dina koy faral di sonal te tam dina jàppale lii nga xam ne moo di màggum xel mi ci ndaw ñi lekk lii nga xam ne moo di ganaar ak itamit nen lu am solo la ci xale yi ak i tamit pour jigéen ñi nga xam ne jigéen ñu werul lañ wala jigéeni biir ak ñi nga xam ne tamit dañuy nàmpal ñooñu nag war nañ di lekk bët bu set benn nen ci bés bi ana neneen noo xam ne sa famille dinañ ñu mën a njëriñoo ci lii nga xam ne nag moo di sa business wala sa koom-koom bii di si wàllu ganaar ba nga xam ne dinañ am lekk yoo xam ne dina leen dimbale yar lii nga xam ne nag moo di dual purpose poultry wala ganaar yi nga xam ne di nga leen mën a jëfoo ci ñaari anam dina jàppale sa famille wala sa njaboot pour ñu lekk lekk yu baax te sell te wóor li si mel ni sax mbayteef yi nga xam ne moom la ñuy bay lii nag lu ko waral moo di ne ndax xaalis bi nga xam ne moom ngay amee ci sa koom-koom bii di nga ko daal di jël joxe ko ñu daal di jëndal ci yeneen ñam yoo xam ne dina leen dimbale bu baax a baax léegi nag nañu xool ay matuwaayu kaaraange ak itamit set fexe ba nga xam ne set ak sell dafay dimbale nit lool ci fànq li nga xam ne moo di feebar am na solo loolu ci wàllu togg li nga xam ne moo di ganaar ak itamit ay nenam ba nga xam ne nag dañu ñor ba loolu nag dina fexe dimbale li nga xam ne moo di sa njaboot ba duñu am feebar yenn yi bul denc li nga xam ne moo di nen ci ron naaj ndaxte denc si ron naaj dafay tax mu gaaw a yàqu denc leen foo xam ne naaj du leen jot te tamit foo xam ne du gaaw a daanu di toj fexeel tamit di raxas say loxo ak saabu ak ndox ba mu set lii nag dina fexe wàññi li nga xam ne moo di biir yi daw ak yeneen di feebar am na solo lool di raxas say loxo ba mu set bala ngaa commencé togg bala ngaa commencé lekk wala bala ngaa jox ñam xale baax na tamit lool nga daal di raxas say loxo gannaaw bi nga xamee ne jóge nga ci wanag wala tamit jóge nga wecci lii nga xam ne moo di xale lii tamit mën nga koo def gannaaw bi nga xamee ne jotoon ngaa laal lii nga xam ne moo di rab yi ji si mel nag ganaar yi nga xam ne moom ngay toppatoo wala boog gannaaw bi nga xamee ne jóge nga sa gaadin wala di liggéey ci sa tool